Fall yow si loo sa lonet yi moom. waaw dafa waar. Ah, ah dafa doy ah, xam nga ah, dama ko tàmm amul jant de. ko tàmm mais am na lumière bi ça. lumière bee tax doo ko. bon léegi yow yow si loo yëngu. waaw man nag moom en fait si suñuy yëngu bëri na quoi dinaay business et tout ça affaire yooyu. da yooyu noonu. bon loo bëggoon leeral yow da nga ni am nga xalaat yoo xam ne man en fait li ma fi indi message la. aywa message bi mu doon. xam nga léegi nii yaa ngi wax saa waay ak affaire wu débat jàng beeg saar yeeg yooyu loolu en fait aussi tamit foog ñu wax si loolu en fait tamit si lu gën a lëndëmal dëkk bi la bokk comme saa yi noonu wax léegi jamono ji dañu jël fen jiital ko jël dëgg nëbb ko ba aduna bi dafa dem ba lëndëm te li ko gën a lëndëmal nag tamit politique bi la parce que politique bi. moo dem ba dugg ci comme li mu doon wax ci borom xam-xam yi këru diine ba nga xam ne léegi nii fu ñu waroon leeroo duñ ko leerloo parce que tamit l'islam leen na ko taxoon ñëw muy des bons attitudes. jikko yu rafet jikko yu rafet. parce que gars yi léegi dañu foog ni jullit comme li ñu doon wax léegi nag ay nga mokkal saari la wala affaire yooyu noonu c'est pas mais du loolu mooy li may wax li ko tax a ñëw mooy de bons attitudes parce que boo xoolee yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla njëkk a sàkk mujj ko wàcce ci yenente ñaata yenente wàcc diggante bi moom balaa moo ñëw. ba pare mu ne roy leen yeneen bi mais ci lan la ko tagg way naka laalaa ku lay naasi li ma sàkk yaa ci gën a mat jikko kon donc ci jikko la ko sàkk mais du ay nit ñi di yore téere wala affaire yooyu comme saa yu wax te doo wax dëgg doo dund dëgg tey bu ñu xoolee loo xam la message la li ma fi gën indi nag mooy góor yàlla yi si lan parce que góor yàlla yi ñi ngi fi mais ñi ngi nelaw parce que lëndëm bi mooy bi ma doon la wax ak affaire politique bi ak comme saa yu ma la wax borom xam-xam yi bu ñu demee ba. mënatuñu kii ci yenn kilifa aada yeeg yooyu noonu parce que dafa lëndëm man nag ci sama jëwriñ laay tàmbalee muy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que mi ngi fi mais xam naa ne bu ma mayee ma débat tuuti moom dina ma dégg te dina xam muy Serigne Cheikh Sidi Al Mukhtar Mbacké parce que gis nga comme Sahel ma ñu ngi ci mujjum jamono te yeneen yooyu dafa waxoon du ma tëdd 2000 ans ci suuf. yonent moo ko wax. Oh, yonent bi sallallahu alayhi da ko waxoon. mu ko waxee. loolu ñu jàng xam nañ ko. Ah, kon yow jàngoo. mais euh, aussi bul wax te jàngoo de. non dafa naa may ma tuuti rek. may ma tuuti may ma tuuti rek ma ñëw. su ma ñëwee rek di nga ma comprendre boo seetloo ci nitu yàlla yu njëkk yi fi nekkoon comme ay Maam Seera Faal ak ñooñu doon ànd ak Serigne Touba da nga daan dégg mu ne la fi am naa fi fukki ndey ak ñett. mooy ce qui veut dire ñëw na ci àdduna lu mat treize fois bu ma yenn nit yi am xam-xam yeeg Baay Faal yi déggee dañ xam li may wax man nag mënu ma fi nekk di fësal sama bopp parce que nit ñi dañ naan tam tam ñu ne la baaxu la wala àdduna ak nu mu lëndamee tey ak koom yi dañuy foog ni àdduna moo la tax a jóg. moo tax fukki ndey ak ñett ngay waxee nii. doo ko loolu dafay waxin la daal. waaw du si àdduna fukki yoon ak ñett loolu amut. non suñu borom nee na loolu amul. non alxuraan loolu loolu bu ne amul muudu. mais alxuraan moo ko. non fu loo ko alxuraan waxee. alxuraan dafa nii. waaw nit su deewee. waaw dee na. ci ban ci ban saar la ko. boo demee si euh, euh, surtout Zumar. waaw yàlla dafay wax yonent bi ne ko. Mhm. innaka mayitun fa innahum mayitun. Mhm. yow da ngay dee ñoom dañuy dee. waaw te ku dee. jeexal nga. amul yàlla xamul ay dee dem ñëwaat de loolu amul de si alxuraan boo deewee. Ah. benn yoon nga dee soo demee nga wuyu régler say problème yow. léegi nag bu la nit nee. bu la nit nee non defal ndànk defal ndànk am naa fukki ndey ak ñett. defal defal ndànk defal ndànk rek borom xam yi defal ndànk rek soo may. yow yaay def ndànk. Hmm. borom xam-xam yi. Ah. mel ñoom Serigne Touba. Hmm. ñoom maam Cheikh Ibra hmm. ñoom dañuy wax ay wax yoo xam ni dafay laaj dégg-dégg. waaw du doo ñëw nii rek yow usu. dara leerul sa bopp. nga ah. bëgg ñëw rek yow xam exactement li maam Cheikh Fall. mais kon léegi yow di nga ma expliquer ci lan la bëgg wax ci boobu noonu am naa fi fukki ndey ak ñett di ma ko expliquer. loolu man maa ngi koy soog a ah, kon defal nank kon xam nga moo tax man la comprendre rogoo ma. moo boo ma mayee ma ñëw boo ma mayee ma ñëw. xam nga compréhension. soo ma soo ma mayee mais soo ma mayee soo ma mayee soo ma mayee rek bu ñu demee di nga di nga di nga comprendre boo ma mayee rek di ñu demee di nga comprendre parce que Sénégal terre promise la nu mu nekkee terre promise parce que borom Tuubaa ba mu fiy ñëw wax na ko nee na man li ma fi indiwaat mooy yeesal sunna si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donc bi mu ñëwee moom jëwriñu yenente bi la woon moo tax mu tudd xaadim rasul léegi en fait bi mu ñëwee dafa woote. nekk sa message lan la. non mais boo ma dégloo di xam sama. parce que yow li nga wax ni attention da ngay dugg si loo xamul. non dugguma ci li ma xamul soo dégloo sama message yi nga xam man. Ousseynou yow jàng alxuraan. jàng naa kay. mokkal nga alxuraan. non du ay moo mais xam naa li alxuraan ci boppam xam naa li ko tax a ñëw yëpp comme li ma noonu la wax léegi nii alxuraan dara taxu ko ñëw l'islam dara tax ko wàcc lu dul la bien-être des personnes l'islam du leneen. Ah bon léegi lu dul le bien-être des personnes sa message lan la. sama message mooy comme li ma doon wax léegi nii li ma fi indi mooy yee góor yàlla yi. mooy message mooy message bi. góor yàlla yeewu. soo ma dégloo dinaa leen yee te yow di nga yeewu. noo leen di yeewee. nu ma leen yeewee mooy comme li ma doon la wax léegi nii ci sama jëwriñ laay tàmbalee parce que jullit laa te taalibe murit laa te li ma doon wax léegi nii Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee jëwriñu yenent bi la woon donc muridisme du tarixa mais c'est la maintenance de l'islam moo tax ma ne la fii terre promise la woon mais du ay léegi ba mu ñëwee ba mu wootee nag dafa am ay tarixa yi fi jiite woon ak ay affaire donc léegi am na ñoo xam ne wuy si nañ am na ñoo xam ne wuy siwuñu parce que dañu jàpp non defal naa boo ma mayee rek. di nga message dafay gàtt parce que yow. yaa ngi taal taal taaw yi di dem lii du message. non mais mais li message lépp message la maa ngi wax kay message la boo ma dégloo di nga xam ne li may wax. message waaw da nga koy tënk ba ki koy jot. waaw su ko non mais mais aussi tamit xam nga wax yombul ak dégg-dégg yombul. déglul message. wax defal nang rek mais defal nang rek Modou defal nang foog ñu mais foog ñu def nang parce que xam nga da nga ne Sénégal ci kanam mais Sénégal pour Sénégal ci kanam nag il faut une bonne direction foog nit ñi di dégloonte te bàyyi xeebaate bi. waaw léegi yow yaa war a déglu. parce que man gis na lii ma fi indi tey message bi man li ma fi indi tey su ma la waxee lii ça presque deux ans ma koy daw mais su ma nee la man fas yéene ma woon ñëw fii mais bu ma demee ba ñëw fii nii situation bi ni mu demee moo ma indi fii mais yàlla mi ñu tiim xam na ni fas yéene. ma woon ñëw loolu du débat. loolu du débat non pourquoi mais loolu du débat. xam nga débat bi lan la ah. ay façon fu yowoon yéen ñëw yooyu yëpp xam nga du débat. non mais mais dama lay jox dama lay mais foog ma wax la pour nga mën a comprendre comme li ma la wax rek non mais xam nga man maa ñëw fi nga invité ma. man man je lance mon message après je pars. léegi nag après ku mu neex parce que comme ni ma la ko waxee rek. waaw boo ko defee nii message du jàll. xam nga message il faut nga am déglu. booy wax nit ñi nit message. na mhm. nga koy wax loo tënk loo xam ne. Mhm. nit ki mën na ko jàpp su bëree. nit ah. ki du ko jàpp. léegi mun naa ko message bi day réer léegi soo mayee mën naa ko gàttal. aywa léegi man maa ngi wax comme ni wax sama jëwrin ni nga en fait góor yàlla yi ñi ngi fi ña fi ne woon nga naan leen dégg ay sëñ Babacar ay alaaji Malick ay sëñ Fallou sëñ Abdoulaat man man la Seydina Ousmane Noreyni. mais xam nga mënuma ñëw wax la ko nii rek automatiquement nga gëm ko moo tax ma ne la foog nga may ma wax ko foog ma am fu ma jaar pour nit ñi mën a comprendre. te yaay man la Seydina Ousmane. man. parce que yaa ngi doon fi wax léegi ne nañ di duddee ñëwaat ak yooyu man tey moo tax man la fas yéene woon ñëw fi mais bu ma demee ba ñëw fi am na lu ko waral. yow yaay Seydina Ousmane. man la te pourtant yaa ngi laaj ci ay saar ak yooyu man saar yi ngeen wax yëpp mënu ma ci tari leen. yàlla xam na ko Seydina Ousmane Ibn Al Afan. Afan yow mii mana mais yow parce que moo tax ma la jàng nga xam nga da ngeen di bàyyi da ngeen bàyyi li nekk seen dëkk dem di jàngi feneen ak dem di wuti leneen mais doo leen xool li nekk seen dëkk. waaw ku la wax yaay Seydina Ousmane. mais dafa laa nga jox la benn exemple Seydina Ousmane bàyyi ba mu gane see àdduna indaalewul cër mais demal nga xool photom ñu war la benn nataalam mi ngi taxaw yore ay cëram et tout ça. yow ku la wax yaay Seydina mais may ma rek ma pare mais Serigne Touba dafa ne ah Ousmane jël ko dugal ko ci néeg jox delloo ko ay cëram. xam nga li may laaj ak li nga wax du benn yow ku la wax ne yaay naa Ousmane man suñu boroom ma ko xamal. nu mu la ko xamalee parce que jullit laa damay sikkër di sikkuru. nu mu la koo xamale moom fekk may sikkër mu rañaan loo ma yëkkati ma ba ci moom xamal ma sam bopp ba pare xamal ma li ne ci réew mi ak xamal ma nit Sénégal fan la mën a jaar ba mën a avancer. yow mii da ràññaan rañaan. naa kay. dem fan. man xam naa ni rañaan naa. non bi ngay rañaan war. waruma dara lu la yóbbu sunu borom ma ma yóbbul boppam ma ma fekk sama lal ma toog di wér di mu yëkkatil ma boppam ba ne ma jàq xamal ma li ma war a loo fa gis ba nga demee. moom mi ngi toog waaye ma ma tiim dama taxaw waaye ma ngi ma tiim. suñu borom gis nga ko. waaw. su wér yëpp du mislul allah siran wa jaharan. déggu ma. gis naa sunu borom ci lu nëbb ak lu feeñ. nga ràññaan. waaw. rañaan bi ñaata temps la durée. deful ma ni la cinq minutes. nga dem dikkaat. dem dikkaat. yonent bi ba muy rañaan daa yéeg alburaax. ma loolu man maa ko gën a xam. moo tax keroog ba may dem këram. di ko seet ñu téema ci bunt bi ki ma doon wax léegi nii sama jëwrin ma demaat fa ñu may téye ak di ma def ay affaire ba ma dellu si waatee mujj sës dama ne waa nekk ci bunt bi mu ne mën naa ma ne ko eh mu ne mën naa ma ne ko boo duggee nga ne yenent bi alburax ñëwoon na fi man lu may jeexale mooy comme lu wax nii ñu noo dugg ngeen ci gaamu président xam maa la wax si waxu léegi nii revenant yi ba ne la man la silence président bi ci boppam moom ci mag ñi la bokk ci nit ñi réincarné la bokk Marcus Garvey bi nga naan dégg yi te Jamaïcain yi di ko woy saa su ne mooy Macky Sall mii ngay dégg. waaye yow usum yi li muy wax moom. boo usu wér nga. bu la neexee nga ni wéeru ma mais bu ma mayee ma eggali ñoom ñëpp ku ci nekk di nga xam sa bopp Serigne Touba mi kii du tudd ci boppam moom mi ngi fi mais comme li ma lay expliqué. ba mu man déggoo man la fas yéene ma ñëw fii sama kër jëwriñ laa njëkkee. waaw Ousmane demal kër jëwriñ kon nga baax fii. parce que yi ñuy wax nii ñun dégg ñu ko de. non yow bu la boo ko déggul góor yàlla yi ñoom bu ñu ma déggee man l'essentiel du yow kese yaa ma fi indi man du yow kese yaa ma fi indi du sam boppam kese moom fi indi mais sénégalais yi pour ñu jëriñu askan bi. que Macky mooy Marcus Garvey mooy Marcus Garvey bu demee ba yàlla indiwaat ko mu gane ci Sénégal boole kook yenn góor yàlla yi parce am na lu mu namm ci moom jàngaatal histoire Marcus Garvey ak nga xool fu mu jaar nga xam ne góor yàlla la woon moo tax man la mouridisme ñun lu tax ñu am benn xam-xam te yow doo ko mën a xam parce que dañu jébbalu suñu borom boo jàngaatee alxuraan boo xoolee wax na la ko nee na la ñi ma jébbal seen lépp ak ñi nga xam ne dañu ma jébbal loxo kese téye leneen li mënu ma leen yemale ak ñeneen ñi loolu mu ko wax mënum loolu am na boo jànga bu fekkee jàng kon yow des nga jàng parce que man dama duma ma la nëbb gën naa gën naa liir mais far naa mais. yow li ma lay wax nii non. mais war nga ko bàyyi ñu tëj plateau bi. parce que franchement yi ngay wax nii man yi ngay wax nii amoo si benn xam-xam. te yaa ngi ma ay Macky Macky saal mooy Macky Gawe aussi lii waxu daanu saret la. waxu daanu saret la. boo ma dégloo di nga boo ma mayee boo ma mayee ba ma am naa sañ-sañu jugee fi ma jugee ñëw di toog ak yow. nan la ay yeneen bee ngi fekk Serigne Touba ngi fekk ay Alaaji Maalik ngi fekk ay sëñ Babacar ngi fekk nu ma def ba xam loolu nga ñuy wax ak yooyu waaw loolu loolu loolu loolu du alxuraan mais parce que moom laa lay wax nii parce que yéen jàngoo leen ba pare alxuraan defal nànk xam nga nit ñi ñu ngi fi téye kaamil di jàng mais xanaa amoon def même problème mu kaamil yi dafa amoon problème depuis temps yeneen bi ban problème boo fàttali ko bi fi yeneen bi sallallahu alayhi wa jugee après am na ay kaamil yoo xam ne Seydina Omar moo ko yoroon Seydina Omar bi mu yoree kaamin gi ba mu fi jugee après da ko bàyyi ak doom bu jigéen doomam bu jigéen. muy kan. jàppatuma tur bi. yooyu yëpp boo yàggee jàng jàng histoire profet bi di nga xam li ma lay wax. ay problème am na après gars yi dañu continuer xare bi et tout ça ba am na ay problème yu am ba Seydina Ousmane bindaat ay kaamin yónnee ko yenn dëkk yi pour nit ñi di ci jàng nga xool. boobu ba léegi non déglu ma rek déglu ma rek. waxtu bi jot na. non dafa nànk parce que kaamin yeeg yii nii sax nit ñi ñu ngi jàng boo mais xoolal jamono ji problème yi am lay wax ay waxu bëreet góor jigéen ñi dañ leen rayeek dañ war a rayeek ay nañ leen fi jëlee ak tout ça mais yow dundoo charia ñi rey nit rayoo leen yaa ngi wax ñu ray góor jigéen. Ousou mus nga seeti psychologue. non yow saa yow. yaa damay laaj wuyu ma tontu ma. <laughs> seeti naa psychologue ay plus de deux fois. ban psychologue nga seeti. dem naa dalal xel dem naa fan. bon Massamba Gueye ñu ngi koy delloo njukkal delloo njukkal Ousmane Fall. ak euh, sunu ay. Euh, mënoon nga ñu may nag. non non waxtu bi jot na ñu ñu ñu gën ñu gën a leer waxtu bi jot na. Euh, ah. sunu ay techniciens yëpp. ñoom Mohamed Ndiaye ñoom laay Saare ak ñoom Ndeye Adaba. monteuse li moo tardeel dëkk bi waa vidéo waa son ak euh, sunu sunu ñawkat di euh, ibrahim Kamara fii ci fii ci waagu ñaay euh, waa caaro yëpp sama yaay Faat Ba delloo ko njukkal yéen ñi nga xam yaa ngi bàyyi xel si àdduna bi yëpp dig daje ëllëg bu soobee yàlla salaam.